jërë ngeen jëf mbokki internet yu Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo rafet lu na ngeen di toppee suñu chaîne bi ngir informé wu lépp rek lu xew ci réew mi ak ci bitim réew tey nag seen acte du jour dañ koy dal di euh, doore rek ak arrestation kii di euh, Bara Dolly euh, moom nag gannaaw ba nga xamante ni sax ca manifestation ba yeewi askan wi doon amal ak wallu Sénégal loolu nag nekkoon ab mobilisation bu mag ñëpp ñi fare ci kujje politique gi daal di teewoon rek ci place de la nation ngir amal rek seen manifestation liñ ci mën a nemmeeku nag mooy leader yu bëri daal di yëkkati ay kàddu rek jëmmal ko ci ki nga xamante ne moom moo di njiitu réew mi di Macky Sall waaye nag kii di Bara Dolly gannaaw ba mu jëlee kàddu yi rek. nag di wax ci li nga xamante ni sax moom moo di njiitu réew mi kàddu yi mu yëkkati nag dafa nekk ay kàddu yi ñagas lool daal di koy jëmale rek kii di njiitu réew mi di Macky Sall ci loolu sax moom ñu dal di koy jël si rek dal di koy yóbbu fa mbaxana doone benn loolu nag liñ koy toppee bokk na ci diffamation diffusion de fausses nouvelles ak offense au chef de l'État bu ñu sukkandikoo nag ci ki koy layal di maître Abdou Dialy Kane moom nag mu daal di yëkkati ay kàddu rek di wax ne sax ne ki nga xamante ne moo di Bara Dolly gannaaw ba nga xamante ni daal dinañ koy euh, euh, lépp loo xamante ni rek ñu ngi ko koy toppee daal dina koy euh, nangu mu nekk sax ay yoo xamante ni yëkkati woon na ko ci bile manifestation moom nag Bara Dolly jamono ji nag mu ngi ko mu ngi nekk rek garde à vue ñu koy toppee lii di diffamation diffusion de fausses nouvelles ak offense au chef kii di avocat am nag daal dina yëkkati ay kàddu rek di xamle sax ne Bara mu ngeek moral bi ku ne xam na ne moom du tiit du ragal lépp loo xamante te ni rek yëkkati na ko mu nekk ay kàddu daal dina koy assumer. ci leneen la ñuy wax muy doomu Sénégal bi di international sénégalais di Sadio Mané moom nag gannaaw ba nga xamante ni compagnie bi di Air Sénégal daal dinay organiser rek ab after work loolu nag daal di nekk ab cérémonie boo xamante ni ñu ngi ko organiser woon na ci fàttali nag kii di Sadio Mané bokk na ci partenaire yu Air Sénégal waaye nag li ñu nemmeeku ci bile cérémonie ki nga xamante ne moom moo di influenceuse bi di Rangou daal dinay teewoon rek ci bile cérémonie moom nag la ñuy gis noonu mu daal di ànd ànd rek ak Sadio maane daal di def ak moom lii di ab vidéo euh, loolu nag dal di rek amal ay photo yu rafet waaye nag keneen koo xamante ni euh, daal di rek ay kàddu jëmmal ko ci li nga xamante ni sax moom moo di cérémonie boobu Air Sénégal daal di organisé wul muy El Hadj moom nag euh, muy def rek ay éloge kii di Sadio Mané moom nag gannaaw ba mu yëkkatee rek di wax ne kii di Sadio Mané dafay daal di rek nit koo xamante ni dafay déglu conseil soo koy conseil sax mu doon lu baax ak lu bon yëpp moom dafay. taxaw rek ah, tem di la déglu ci conseil yi nga xamante ni sax da ko koy jox ah, loolu nag nekk loo xamante ni daal dina koy marqué bu baax ci kii di Sadio Mané ah, gannaaw ba nga xamante ni nag moom ñëpp lay déglu képp koo xamante ni rek ñëw na pour di ko jox ay conseil rek moom day pare pour déglu ko kii di El Hadji nag mel ni kuy def rek ay éloge Sadio Mané di ko waxal yu baax. ci euh, leneen la ñuy wax kii di euh, Mimi Touré moom nag gannaaw ba nga xamante ni daal dinay janook taskatu xabaar yi ak manifestation bi nga xamante ni sax ñii di waa Yewwi Askan Wi amaloon nañ ko loolu nag mu nekkoon ab mobilisation bu mag moom nag Mimi Touré daal di génn rek di yëkkati ay kàddu muy xamle sax ne politique du rek yëkkati ay kàddu yu ñaaw euh, di ko teg ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo la mag mu ne respect dafa baax ci loo gis loolu nag bokk na sax ci daal di respecté rek suñu institution bi nga xam ne bokk na sax ci kuréel gi gën a mag ci wàllum justice sa euh, moom nag Mimi Touré gannaaw ba muy janoog taskatu xabaar euh, mu mel ni rek kuy contrer ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kujje politique yi gannaaw kàddu yi nga xamante ni yëkkati woon nañ ko ba ñuy amal seen bile manifestation wax ci leneen muy coowal kii di sey Seydina Fall Bougazelli moom nag ci fàttali ñu ngi ko tegoon loxo rek ni ki novembre deux mille dix-neuf ci lool nag waa section de recherche ñoo ko jàppoon loolu nag bokkoon na ci wàllum trafic de faux billets moom nag Seydina Fall Bougazelli mu mel ni sax dossier bi daal dinay suleeku bokk na rek ci ki nga xamante ni sax moom moo di doyen des juges di Omar Maham Diallo daal dinay accordé rek liberté provisoire kii di Oumar Samb moom nag ci fàttali ab économiste la nag bokkoon na sax ci ñi nga xamante ni mën nañ jàpp ne moom moo gënoon a dugal a kii di Seydina Fall Bougazelli tragédie wala drame ba nga xamante ne moom moo amoon foofu nag nga xamante ne moom moo di ca Tiwaawan lool nag gannaaw ca hôpital Maam Abdou Aziz Sy baax ba nga xamante ni sax fukk ak benn liir daal di ci ñàkk seen bakkan ci ab lakk bu métti mu mel ni sax audition yi mu ngay wëy rek ki nga xamante ni sax moom moo di directrice su hôpital ba di docteur Binte Diop Mbeng ak ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Diop nekk ressources humaines ak ki nga xamante ne moom moo di Fodé John division maintenance ñoom nag ñu ngay défilé wu rek ci biir tuumaloo kii di magistrat instructeur ba mu mel ni nag ñu ngay wéy rek enquête bi ak audition yi ngir indi ab leeral rek ci bile tragédie xewoon na foofa ca diwaanu Tivaouane hôpital Maam Abdou Aziz Sy Dabakh coowal Sweet Beauté Adji Sarr ak Ousmane Sonko mu ngay wéy ba léegi rek mu mel ni sax ki nga xamante ne moom moo di Adji Raby Sarr daal dinay génn bi yoon nag daal dinay haussé le ton rek moom Adji Sarr gannaaw sortie bi mu def rek di yëkkati ay kàddu rek jëmale ko ci ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko moom Adji Sarr nag muy wax naan Ousmane Sonko yaa ngi nekk di sonal nit ñi ak yeewi askan wi mu ne yow nag bala ngay yeewi askan wi yeewi ma ba pare ñu daal ñu door a di yeewi rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi loolu nag nekk ay kàddu yoo xamante ni kii di Adji Sarr daw ci benn yoon na dellusiwaat na bu baax a baax ci Ousmane sonk ak coow li nga xamante ni moom moo leen boole moom Adji Sarr nag daal dinay def ab vidéo rek haussé le ton di mel ni sax kuy menacé rek kii di Ousmane Sonko naan ko na ko yeewi gannaaw ba nga xamante ni sax lii xew xew na ba pare na daal di génn rek leeral mbir mi ñu daal di yeewi rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi bokk na rek ci di fàttali Ousmane Sonko ñi nga xamante ni sax moom mooy ndaw yi ñàkkoon seen bakkan ci manifestation yi xewoon ca nit ki mars loolu nag bokk na rek ci ay nit yu bëri ñàkkoon na seen ba bakkan ci coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko moom nag ni kiy démb di génn rek daal di def ab vidéo haussé le ton rek di mel ni kuy menacer ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko. beneen sorti rek ngir leeral loolu nag gannaaw kii di Maty Trois Pommes ba mu génnee rek yëkkati ay kàddu teg ko ci dexu Ousmane Sonko moom nag muy xamle ne am na beneen ndaw muy wuyoo ci turu ay Lo dëkk foofa ca diwaanu Ziguinchor Ousmane Sonko daf ko jëlaloon appartement ah, di dem foofu rek te kooku sax ab masseuse la ah, ci loolu nag kii di ay Lo xaarul dara rek ngir daal di génn indi ay leeral ci li ni mel moom ay Lo nag daal di seetal deram bu baax a baax di xamle rek ne moom xamul Ousmane Sonko mosu koo gis ni ko nit ñi di gisee ci télé bi rek moom tamit noonu la koy gisee euh, aw ma kontagam loolu sax nekk ay kàddu yoo xamante ni kii di Aïcha Lo daal dina koy yëkkati euh, muy xamle sax ne dina plainte rek ki nga xamante ne moom moo di Mati Trois Pommes gannaaw sortie bi nga xamante ni def na ko euh, di yëkkati ay kàddu rek di wax ne Ousmane Sonko daf koo jëlal appartement di dem foofu ca diwaanu Ziguinchor di ko rek pour dal di maasewu loolu nag dal di biek nekk rek ay kàddu yoo xamante ni kii di Mati Trois Pommes yëkkati woon na ko waaye nag kii di Aïcha Lo muy wax rek ne moom xamul fan la Mati Trois Pommes inventé bi la histoire ndax moom moom mosul gis Ousmane Sonko xamu ko euh, kon nag Mati Trois Pommes moom dina ko yóbbu ci yoon dina ko porter plainte euh, ci loolu sax ndax kàddu yi mu yëkkati dafa ñaaw moom ci boppam sax euh, xamul sax fu Ziguinchor féete waxuma la ak nag di fa jël appartement di fa nekk ak ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko. ci euh, leneen la ñuy wax gannaaw ba nga xamante ni sax euh, moom Marichou euh, daal na marié wu rek ak kii di Billy ñu gën ko xam ci Khadim seen ci loolu nag mu mel ni am na ab animatrice rek bu daal di génn def ay révélation yu doy waar moom nag muy xamle ne Marichou sax dafa daal di ëmboon loolu nag moom muy xamle rek ne mën na am sax ne ëmb bi dafa yàqu waaye nag loolu c'était une réalité moom animatrice bi nag muy yëkkati ay kàddu rek ne gannaaw ba nga xamante ni sax dem rek ngir amal interview nee na famille Marichou dañoo bañoon rek ñu daal di jël ay image ah, ci seen bile ah, kër ak sax liggéey bi nga xamante ni moom lañ ko doon amal ah, mu mel ni sax dafa am yoo xamante ni dañ ko doon nëbb yi nag nekk ay révélation yu doy waar yoo xamante ni am na animatrice boo xamante ni daal dina koy def jëmal ko rek ci kii di Marichou Amina Poté animatrice télévision Futur Média moom nag gannaaw ba nga xamante ni émission yi muy amal foofa ca TFM daal di nañuy nemmeeku rek jamono jee mu doon sol ay tenues yu sexy ci loolu sax daal di affolé rek la toile di euh, ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo ko doon seetaan di amal ay commentaires yu doy waar gannaaw li nga xamante ni sax noonu la doon comporté woo ci télé bi waaye nag yile image mu mujjee publié moom nag daal di nay changé port vestimentaire euh, ci loolu nag moom mu daal di sol ay tenues yu décent ay tenues yu rafet loolu mu daal di ko koy publier rek ci li nga xamante ne moom moo di page am waaye nag jot ay commentaires yoo xamante ni euh, mën nañ jàpp ne sax ñii di internet yi daal di nañ koy apprécier bu baax gannaaw ba nga xamante ni euh, doon na sol yëre yoo xamante ni ku ci nekk rek mu ngi ko doon sànni xeer waaye nag bi yoon euh, daal di nay changer bu baax sol ay yëre yu décent. agression ba amoon foofa ca diwaanu Maris ab agresseur rek daal di rek euh, jël otos ndaw rek daal di daw ak moom ci loolu nag moom gannaaw ba nga xamante ni ñaari borom scooter daal di nañ koy topp euh, mu jaar nag ca yoon bu baaxul ñu mujjee koo jàpp askan wa daal di génn dóor ko ba mu nekk ci diggante dund ak dee euh, mu mel ni sax daal di nañu identifier rek bile agresseur Yare mbay lay wuyu moom nag ñu daal di jàpp sax ni ab doomu avocat la avocat bi nag mu ngi tudd maître Mbaye nekk président conseil départemental bu Saint-Louis. xale jour ak animateur bu Walfadjri bi di wuyoo ci Thiamas moom nag gannaaw ba xamante ni ah, daal dinay jóge sax foofa ca télévision Futur Média delluwaat ca Walf TV ga nga xamante ni fa la nekkoon moom Thiamas nag jamono ji il est dans de ba nga xamante ni sax ah, daal dinañ koy teg loxo rek loolu nag mu ngi jëm rek ci ah, jaay li nga xamante ni moom mooy terrain loolu nag ñu mën ko duppee sax vente illégale de terrain moom nag mu ngi nekk à garde à vue depuis le jeudi 9 foofa ca commissariat bu Géejawaay mbokk yi safoon doon ñu teewlu ci seen chaîne Allô Sénégal lii lañ leen andiloon seen xibaaru bis bi di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu seen bi te laal cloche notification bi bañ a dara ci suñuy information jërë ngeen jëf